bonjour sama gars yi dal leen ak jàmm sur ma chaîne YouTube Net Bi TV di am mbégte ak kontaan bu baax seetaan bi ngeen seetaan ak sibir ngeen sibir te di ñaan yéen ñi xamante ne gan seen bi te abonné ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te bu leen fàttee bés cloche de notification bi. dikk yéen def leen waxtaan rek série di jabar góor gi si kaaw ma soxna bi ak Cheikh ndax da ngeen xoolee Sadia gis ne na roqeem boobu mi ngi enseigné mariage bi si am na plan bu muy lal ba tax nag Sadia bëggal jàmm maa soxna bëggal ko yaayam Jeynaba ba tax mu si waxtaana ak Jeynaba moom Sadia ngir mu teye si diggante maa soxna ak Cheikh ndaxte seen mariage dafa gaaw jékki jékk rek ñu ne Cheikh mi ngi takk maa na te lépp roqee mboobu moo nekk ci ginnaaw loolu nag Sadia xamal ki nga xam ne moo ba Jeynaba Jeynaba nag am na ko am lu ko gisee en tout cas Jeynaba gis na ne Sadia dafa soxor te dafa añaane ki nga moo di maa si mariage bu mu nekk ak 15 millions yi ko yi ko bëgg may xaalis bi lay xool moom génn ba ba tax sóoraaluwut danger yu maa soxna mën a am sëy bi ndaxte ki nga ne moo di Sadia gis na danger wax ko ki nga ne moo di génn ba pour maa soxna mariage bi mu mariage ak gis na ne moom Sadia affaire bi dafa gaaw ba tax mu yaakaar ne ab plan mu si ba tax mu xamal ko ki nga xam ba waaye nag génn ba moom ab soxla la ko yaakaar ba tax ba mënut a dégg li nga xamante ne moo di Sadia di wax waaye nag lu si kalam rawati bët gars yi di yemandee fii si vidéo bi rek. di am mbégte ak kontante bu baax seetaan bi ngeen doon seetaan ak suivre bi ngeen doon suivre di leen ñaan yéen ñi nga xamante ne gan seen te abonné goo leen si ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te bu leen fàttee bés cloche de notification bi jaa jëf.